ay ñi ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñiy suivre Mo Sport ñu war ñëw yéen ci benn vidéo wax ci Cheikh Amadou Bamba Dieye bi nga xam ne ma nga nekk fële ci Lorient mu nekk équipe boo xam ne ma nga nekk Ligue 1 bu France mu nekk jour boo xamee ne gannaaw ba ñu nemi mu nekk Olympique de Marseille mu tam temps de jeu euh, Lorient ñoo ko bëgg dara koy indi seen club ñu gis na nag léegi xale bi mu ngeen su vidéo otaaral fii ci Rmo Sport ñu ngi ci Cheikh Ahmed Bamba Dieng bi nga xam ne ma nga nekk fële ci Lorient nekk Ligue bu France maanaam championnat France bi daal fa la ba léegi gannaaw bi mu jógee ci Olympique de Marseille Cheikh Ahmadou Bamba Dieng tey dugal na premier bi am ci euh, ca club bi di club bi di Lorient mu nekk loo xam ne nag l' extraordinaire la maanaam de pénalty la dóor mu dugg comme ni nga xamee Cheikh Ahmadou Bamba Dieng teg pénalty sans pression arrière xool fa mu def loolu nag day wane ne Lorient de club la boo xam ne suñu gaynde bi jox na ko wàccuwaayam te suñu gaynde bi jàppe ko xam ne cadre ci club ba ndax ba fa demee yëgul ñu jox ko penalty mu dóoru kon nag loolu dañ koy ñaanal xale bi continuer di dugal continuer di amay penalty di ko dugal ndax confiance mën ñor bu baax bañ tur fi Bamba Dieng bi ñu xamoon ci 2022 bi kon gars yi ma nekko vidéo wéy di amee di commentaire di partager di liker nga ñuy xaar fi suñu am ngeen jaajëf bu baax a baax